gannaaw bu loolu wéyee maa ngi def déclaration boo xam ne ci kaw ci la ma tax ma di ko def moo di lépp loo xam ne mu indi wax ji jarut di ca dellu mooy xam ne jàmm ak salaam moom rek laa bëgg nit ki nag buy oote jàmm yaakaar naa ne doo oote aw xay kuy oote jàmm jàmm la ngay bëgg jàmm jooju nag moom laa bëgg bëggal ko ñëpp su ma sañoo nit ñëpp am jàmm réew mi am jàmm te Sénégal amul lu Sénégal kenn mënut a ba toxu ba fu génn fu gën Sénégal wala foo demee doo am lu yem lu yem Sénégal kon nag man Cheikh Tidiane Khalifa Niass déclaré wu ma guerre tey déclaré wu ma guerre ëllëg te képp ko wax ne man dama ne dama déclaré guerre kooka moo sos ay waxam seet na mu ko bëggee ngir salteel walla ngir tilimal waaye duut lu dut ki nga xam ne tey moo la fi yàlla teg muy Macky man de tuutuluma ko fonk naa ko naan ko ñaanal te xam na ci dara sama xarit la te itam xam na ci dara kon suñ ne damay déclarer guerre ñooña ñoo déclarer guerre waaye man déclarer ma guerre man jàmm rek laa woote li nga xam ne noo moo andi yëf yi de mujj nag ah sama doom laa sant mu jiitee ñu bëgg def nu su noonu man a bañ ne duma ko nangu te it sama waxee démb ji rek ba tey moom lay delloo wax lu wax ne sëriñ am lu may juróom wala ñeent jàkka ja téere ba tool ya taalibe ya loolu lañ am ñu loolu daal ku ñu bàyyee suñ diine ñu gën ñu man moom a gënal te jumaa ji buñ ko tëjee fu ñu ñaanee yàlla nañ ubbi jumaa yi ubbi jàkka yi ñaan yàlla mbas mi yàlla delloo ko fi waaye suñ tëjee jumaa yi tëj jàkka yi te ubbi marché yi ma ne bu ñaanee yàlla yàlla du nangu kon nag mag yi la waxoon démb rek boo tëddee nelawal man daal maa ngi lay ñaanal kontoonu ma la nag tuutulu ma la nag ndax su ma la tuutee sama tuuti. li des mooy li nga xam ne moom laa ci toog mooy eh, affaire yi jàkkee ak jumaa yi comme solution boo xam ne nattuwaay boo xam ne. moom na moom ngeen bëggee ñu doxalee ko ñu doxalee ko ko te it wax dëgg yàlla am xolof jaay am na lu wax nee na songul sa taar nga bëgg. ku ne la songul sa taar la bëgg. kon nag léegi ñun bëgg nañ ñu ubbil ñu jumaa yi ubbil ñu jàkke yi seet leen ni ngeen ko bëggee ñu ñu def ñu defee ko ko taxawee ko ko euh, matee ko ko buñ ko defee danañ xaar suñu bopp xaar réew mi loolu daal mooy li nga xam ne. moom laa ci teg yow yi bëgg naa nag mu nga bañ a yàgg mu bañ a yàgg mu bañ a yàgg jumaa yi ak jàkk yi nañ ko ubbi ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ujum bii may def yàqu moom di la ko sante di la ko gërëmee di la ñaanal dama la waxoon ci suba rek moom laa yàlla waxati incha allah ci kaw rek ci kaw rek léeg-léeg fi nga jàppale Macky te gis naa tànk yi nga koy jàppale gis naa loxo yi nga koy jàppale réew mi yëpp gis nañ ñu koy jàppale loolu yëpp maa ngi lay ñaanal mu sax te yàlla nag musal la ci gémmiñ goo xam ne dafay yàq diggante yow ak mag yi te parce que am na làmmiñ làmmiñ yu bon waaye làmmiñ yooyu yëpp yan yàlla taxal nañ làmmiñ la ko incha allah yàlla na ko def. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.